والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ñu del siwaat ànd ak al imam muslim ibn alhajjaj rahimahullahu taala ci téere bi di saxih muslim ñu toll ci benn bunt boo xam ne mooy buntu juróom ñaar fukkeel ak ñett ci bunt yi muy baabu badlil waxyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu nekk ci kitaabul iman bu ñëpp ko xamee muy bunt bi njëkk ci saxiixu muslim téere saxiixu muslim dafa doon ay téere ci biir téere bu nekk doon ci biir loolu mooy dafay chaque benn téere bu nekk boo am ki ci jëkk doon mooy kitaabul iman tey ñoo ngi doon ci chapitre wala bunt boo xam ne moo di soixante treize ci buñ ko dee yëpp baabu badlil waxyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na lii mooy buntu tàmbali wàccu waxyu ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kenn ku nekk xam na ne ak yonent mooy waxyu yàlla yebal malaaka mu wàccee ca yonent ba lam soxla mu jàllale ko loolu nag dafay am lu tàmbalee kon li buntu bi di waxtaane moo di loolu fan la wàcc kañ la tàmbalee wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala fan la wala sax nan la kon kañ la ni moom daana ci itteelu lu bari lool ndax nekkul ci xadis bi waaye mën nañoo xam période la ci ni mu tëddee ak diggante boobu ak yan jamono la waaye kañ la moom ak fan la moom ak nan la loolu wax nañ ko ci biir xadis bi الإمام مسلم رحمه الله الإمام لمن حدثني أبو الطاهر Abu Taahir mooy kunyaam waaye mi ngi tudd Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Sax kon sëriñu muslim boobu moo tudd Abu Taahir Abu Taahir nee na axbarana ibn Wahb ibn Wahb mooy Abdullah ibn Wahb al-Misri siiw na lool moom itam nee na axbaran nee na axbarani Yunus Yunus moom lay wax Yunus ibn Abdil A'la an Ibn Shihab wa Ibn Shihab az-Zuhri ku ñu xam la qaala haddathanii Urwatu bnu Zubayr anna Aa'ishata zawja an-nabiyyi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam kon Urwatu bnu Zubayr moo jël ci Aïcha soxna si Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam axbarathu nettali na ko moom Aïcha nettali na Urwa annaha qaalat li moom Aïcha moom xadis bi nag xadis bu gudd bu gàtt la mi ngi ci Buxaari nekk ci Muslim comme ni mu nekk ci yeneen téere yi bare bare Aïcha radiyallahu taala anha moo ko nekk la Urwa ibn Zubayr mu di wax lu nan la tàmbalee woon di wàcc ci Yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na kaana awwalu maa budi'a bihi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam al-wahyu ar-ru'ya as-saadiqa fi an-nawm nee na nekkoon na awwalu maa budi'a njëlbéen la njëkk a tàmbalee bihi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam min al-wahyi la njëkk a tàmbalee moom ci wahyu moo di ar-ru'ya as-saadiqa gént koo xam ne dafa dëggu fi naw mi ci ay nelaw loola noonu demee mu ne fa kaana nekkoon na laa yaraa gis ru'ya gént illa jaa'at lu dul mu dikk misla falaqi subh mel ne penku suba maanaam nam ko gisee rek day leer nag ñu ñi ñu ñi kon boobu Aïcha radiyallahu taala anha mi ngi nettali yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ko wax yi da daan dikk ak lu jiitu wax yi di wàcc loolu mooy li ñu tuddee ay irhaasaat maanaam loo xam ne daal bu doon am taw ngay wax ñu ngi tàmbali xiin ñu def nangam ñu yëngoo ngi am yàggal taw bi doole ñëw yooyu li jiitu kon fa mu tàmbalee mooy lu gént rek bu subaa nag mu gént woon noonu la koy gis loolu ñi nga xam ne génn yonent bi la ndax nit ñi ñi ci gën a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn seeni gént benn xaaj la yoon nit ñi ci des ñëpp nga xam ne dañu ay yonent benn xaaj la ci ñeent fukki xaaj bu fekkee ak yonent nga xam ne lu mu wax cent pour cent lay am lu gént cent pour cent loolu lay dikkee bu dee kenn ci nit ñu baax la nga xam ne dañ naan yow day borom gént la su boobaa moom ay géntam boo ko méngalee géntu yonent wala ak yonent ci boppam deux virgule cinq pour cent lay maanaam foofu lay fees deux virgule cinq pour cent mooy toll ak sax maanaam sa gént yow sa géntu yonent ak loo baax baax asaka ja muy tolloo la muy tolloo ci géntu yonent mooy asaka bi ndax deux virgule quarante boo séddalee ñeent fukki xaaj la mën a doon loolu mooy jël deux virgule cinq pour cent xadis bi nag Aïcha radiallahu taala anha lii muy nett li nii kenn ku nekk xam na ne ndax jamono yi doon jéem a xëy bi yàlla ak Aïcha radiallahu taala anha war a am du weesu ay benn at ak ñaari at ak yooyu dégg kon nan la ko nettalee loolu la ñuy tuddee moraasiru saxaaba maanaam li nga xam ne saxaaba yi dañ koo jëlee ci yeneen saxaaba yi nekk li ko fit loolu borom xam-xam yi xadis yépp dëppoo nañ ci ne saxaaba yi li mu nekk li jëlee ko ci beneen saxaaba yi jëlee ko ci yonent ba moom la mu déggee ci yonent bi benn maanaam nañu sukkandikoo jëlee loolu la ñu sukkandikoo kon mbir moomu noonu la dem nee na kon lañ bi ko tàmbalee moom mooy gént bu dëggu fi naw fi naw yooyu loo xam ne ci biir nelaw loolu gën a wóoral la waaye gént moom ku nekk xam na ne ci ay nelaw lay doon kon bu dee gént bu dëggu ci ay nelaw loolu bu fettali la ndax ñu xam ne loolu la ci loolu la ko daan dikkee su yow nga gis ko waaye ku nekk xam ne ci gént ci nelaw rek lay doon nee na suma bi ba ilayhi alxalaaqu topp gannaaw loolu gannaaw boo xam ne gént yu bari yooyu su géntee rek bu ñëw nañ ko gisee woon suma xubdiba gannaaw bi nag ñu soppal ko maanaam sopp mu bëgg ak wéet moom ñu dem di dellu daal di jaxasoo nit ñi di ko mala parce que di ko gis duutu toog ak nit ñi du waxtaan lu bari ba kaana mu nekkoon fa kaana yaxlu mu nekkoon nag di wéet bi xaari xiraa in ci xunti mu ñuy wax xuntil xiraa xiraa benn montagne la boo xam ne boo jógee Màkka jël Minaa mu ngi ci sa wetu càmmoñ wala dem montagne moom dafa am benn xunti bu mag bu ne ci biir nee na foofa la daan dugg yàlla xam na suuf nee na su demee foofu dafa jaam yàlla mu tax mu firi ko mooy boobu wa at-ta'abbudu loolu borom xam-xam yi ñeneen Ibnu Shihab az-Zuhri moom moo firi firi boobu moo ne wa huwa ta'abbud kon baatu wa huwa ta'abbud boobu li ñu tudd mudraj muy ab xadis boo xam ne day def ba mu yàgg nit tax bal ca benn baat wala ñaari baat ngeen firee ko dara leen rek kon loolu ay Ibnu Shihab az-Zuhri ki nga xam ne moo jëlee xadis bi coow la tudd Zubayr moom bi mu agsee ci yataxannasu mu di ne mu ne jaamu boobu fii mu ne boobu war taabudu loola mu ne jaamu li cosaan ci alxins ci kàllaama arab bi ko wax mooy bàkkaar alxinsu mooy bàkkaar bu arab ne yataxannasu mooy yatajannabu alxins maanaam day wattaliku bàkkaar comme ni nga xamee ne yataxarraju mooy yatajannabu alxaram yataassamu mooy yatajarrabu ism loolu objectif la ci arab boo xam ne xaaral objectif yu néew a néew ci xalaatu arab day baal yu néew a néew mën a tëggeenam loolu moo tax ci xadiis Muaaz bin Jabal ba boo ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee loolee da ko wax ci wax laa ilaaha illallah sellal ko damay tàbbee àjjana man ko ndax ma bégal nit ñi mu ne ko bu leen bégal ndax damay ragal bu wax ci ñu bàyyi li ko mu ne bi nit Muaaz demee ba ci mujj ga li mu daan am baat ba la ko waxee waaye baat ba lu ko ittee nee na taassuman waaw taassuman maanaam tajalluban leen gis mi daf doon ragal dëgg xam-xam loolu moo tax mu yëg ko kon it xam na su daal mooy dem biir bu béréb ba di jaamu yàlla di xalaat di def nangam ndax bu yëg ci boppam xel nit ka di gën a mën a amee xel mu mucc ci ay coow yu bare ndax nit ki bëgg a concentré wu mbedd bi oto yi nekk ba lépp lépp dëkk yu sàmm yi nga dégg dëkk maag caaxaan yaa yu mel noonu di jaxas sa xel te màkk jamono yooyu réew ca saaroo ko loolu bari na ko ku bëgg a toog di xalaat ci sa borom wala yu mel noonu laaj nga béréb boo xam bu mel noonu la kon loolu moo taxoon mu jot nee na allayaaliya ulaatil adad ay guddi yoo xam ne dafa koy lim ci saxe bu Buxaari dawaatil adad la ko waxe maanaam tànn daal semaine bu nekk am ci ay guddi yoo xam ne day dem di yegg di yàlla di fanaan foofa loolu laa waxee am yonente bi alayhi salaatu wasalaam qabla an yarja ila ahlihi maanaam saa bu fa jógee daal dana am fan yoo xam ne day wax tey su ma demee nanga bi fan laa koy am door a dellu ca ñooñu lu mu daan nekk lu mu daan naan nee na wayata zawwaru li dalika wayata zawwaru nee na daf daal yóbbulu li dalika ngir loolee mu mën fa nekk dafa am lu koy naan ndax am kunti la boo xam ne dañuy lekk li ñu naan dégg fa waaye su fay bàyyi soxnaam di dem di Xadiija radiyallahu anha day jël ca lu muy dundee ak la nga xam moom lay naan ba loolu doon la ci jeex mu del si waat ca kër gi mu ne summa yarjiu ila xadijata su ko defee mu del si waat ci xadija xëyata zawwaru mu yóbbulu li bis bi xanaa ci lu mel noonu noonu daal la ko saxoo su demee ami fan del si waat ci kër gi parce que ay fan day waajal del si waat noonu la doon def xatta fajaahu lxaqu nee na ba dëgg nga bett ko ba dëgg nga bett ko wata moom boobee mu koy bett ci waaye xiraa neen ma nga ca kuntil xiraa dëkk googe mooy lan nee na fa jaa'ahul malaku nee na malaika malaaka ma dikkal ko fa qaala iqra daal fi mu toogee rek malaaka ma ak si daal di ñëw ne ko iqra jàngal qaala ma ana bi qaari ma ana yuqaari muy mënuma jàng la axsinu lqiraa am na ñoo xam ne ni ñu koy firi firi bu ñaaw la dégg naa ko ci gàmmu ko mu ne ko jàngal mu ne ko jànguma mu daal koy jàpp bokk kon du jàngu waaye man mënuma jàng ndax jàngatu ko ferul nit yi alayhi salaatu wasalaam maa ana bi qaari mooy la axsinu lqiraa man de mënuma jàng qaala wax na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa axadanii mu daal di may tey fa rattanii nee na mu naj ma te mu dëgër bopp xatta balaga min di jeex nee na ba mu àgg foo xam ne daal sonal na maanaam ba muy bëgg a xëy dem ba day mujj wutoo mën a mooy ndax tey mu dëgër suma arsalni mu daal di may bàyyi nee na iqra jàngal ma tontu ko ne ko maa ana bi qaari man kat mun ma jàng fa axadani fa wattani saaniyata nee na ma defaat ko na ma ko defee woon ba ma àggaat ca si coono ba ma sonn mu daal di muy bàyyiwaat nee di ma jàngal ma ne ko mun ma jàng nee na mu defaat ko nag ñetti yoon bi mu ko defee ñetti yoon nag ba téye ko ba mu dëgër bi mu ko bàyyiwaatee nag la ko door wax ne muy jàng iqra bismi rabbik jàngal ci sa turu borom la alladi xalaqa ki nga xam ne mooy ci bind xalaqa al insaan mooy ci bind nit min alaq bind ko ci topp toppub ndox moo bind nit ci toppub ndox boo xam ne dafa topp fi béréb rek nit nga soxoo ci iqra na ko jàngal war a bëggal ak al akram sa borom bi nga xam ne mooy ci gën a tedd alladi ki nga xam ne allama moo jàngale بالقلم أو كان في بندقاء الخليل علم الإنسان ما لم يعلم mooy jàngal lépp lu Mustafa maanaam kon munoo jàng dëgg la ndax kenn jàngal loolu waaye li tàmbalee nag fii ci tey jàngal kon digal na ko fi mu jàng tuddal ko jàng moom fan la ko nar a jógee mooy du jàngam xel du jàngam jaaxaal waaye sa borom ñu jàngal doomu aadama lu mu xam lu def wala nar a jàngal kon sa xel tax nga xam tuddal ko lenn ci jumtuwaay yi jàng muy xalima ak bind doonte moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bindul waaye nag koo xeetam njëriñ na ci loolu kon suñu borom tabaraka wa taala jàngale na ci xalima jàngale na ci waxyu te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo la ko jàngale kon ñaari nit ñu ko fekk boo xam ne jàng ci xalima ak boo xam ne ko jàngale ci waxyu ki ñu jàngale ci waxyu moo def yonent ki jàng ci xalima mën naa ne yow keneen koo xam ne dafa demee noonu kon jàngum xalima moom jàngum barkeel la bu jëm kanam la moo xam ne ku dem ba ci suñu jamono tey yi nga gis ci xalima di liggéey ba ci ordinateur yi jumtuwaay yi nga xam ne doomu aadama yëpp ñu jëfandikoo rek di ci jëriñ du génn mukk àllam bil qalam bindukaay ak qalam du ko wax muy bindukaay boo ci gis ku rek moom yor bindukaay boo xam ne moom lay jëfandikoo ngir mën a bind kon lii moo xew ca xuntima ci xaaru xira ci jamono yooyu farajaa biha farajaa bu daal di dellu biha yóbbaale lool yi loolu lan la mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam naka mu wàcc ci moom la koy mokkal yóbbaale waaye nag yóbbaale ñàkk ak itam moo tax mu ne farajaa biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tarjufu bawaadiruhu tarjufu muy lox bawaadiru ko nawam nga maanaam xëy bi comme nit ku tiitee suufu ndaw li nga xam ne mooy nekk ci yëngatu ñii nee nañ ci suufu mbagg bi lay nekk ñii ci kaw lay nekk waaye ala kulli xaal li gën a bari ci ñun bii moom mooy ko tolloo xol ba mooy gën a faral di def wala naw ci muy dënd ci kon daal bu muy àgg daal ma ngay dox xatta daxala ala xadija ba mu dugg fa xadija fa qaala zammiluuni zammiluuni sant bi loolu mooy sànq leen ko sant bi loolu sànq leen ko kon ni mu dikkee booba bés bokkut ak ni mu daan dikkee ndax koo xam ne da nga daan yóbbu xam naa yow sa suuf ak say jublu bàyyi say naan kaay ak yooyu benn bés nga at si rek ba tiitaan yi yoo xam ne sama yaram ngi dox teg daal boo dara boobu yow yow sa loxo kese ñëw ne sànq leen ko sànq leen ko boobu nit ñi war nañoo tiit fa zammal boobu nee na ñu daal di koy sànq xatta dahaba ba mu dem anhu tukkee ci moom rawru tiitaange bi danañu sàng ko ba tiitaange ya dem summa qaala li xadija ay xadija maa li xadija lii lan la li ma dal lan la wa axbaraha al xabar loolu lépp bi ñu koy sàng ba xelam di dalal bi muy jël si waat di waxtaan yëpp laaj ñu koy wala dal ak boo nekk xam nga ne am na kër yoo xam ne bu borom kër gi ak si wala boobu melokaan yoo xëy ñoo la koy wax waaye kenn waxu dara dañu teg sàng leen ko ñu sàng ba del siwaat ci ak dalam tiitaange bi dem mu door a jógal boppam laaj lii lan la war a doon yow xadija nettali ko lim gis lépp ba àgg ci wax ko aaya alquran mu dégg qaal mu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laqad xashitu ala nafsi laqad xasiitu ragal naa wala tiit naa ala nafsi ci sama bopp donc sama xel daal dalul ci sama bopp foofu nag borom xam-xam ñu ngi fi tudd yu bëree bëree bëri lan muy njàqare ibnu xajar tudd na ci loolu fukki wax ak ñaar yoo xam ne borom xam-xam yi dañ moo sabab njàqare bi waaye la ci gën a fés te gën caa mulu lu gën a dëgër moo di ne gëm na ne lii mu gis tey ak yan lañ ko nar a yor boo xam ne gis risaala la yiw te bu wàccee ci kawam loolu yan bu diis la te kuñ nar a yan ak risaala te yaluguñ la ko da nga am njàqare ci ndax sas bu rëy lii ma sama borom sas danaa ko mën a def ñu ko diir yëpp wala du ko mën kon loolu mooy li gën a bés ci loo xam ne njàqar la ñii nee nañ dafa ragal ne pour danaa dee ñii ne pour danaa dof ñii ne naa nga yu mel noonu waaye ragal yu mel noonu jàpp ko ñu ne loolu moo doon la gën a bés ci njàqare loolu ñu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat lahu xadija xadija mooy soxnaam ne ko kallaa déedéet abshir bégal bégal fa wallahi waat naa ci yàlla ne laa yuxzika allah yàlla bu la toroxal maanaam du la bàyyi ci kanam dana la jàppale laa yuxzika allah abadan lu tax Xadija loolu mu wax fu mu ko teg mu ne ko wallahi waat naa ci yàlla innaka ne yow mii la tasilu rahim da ngay jokk ak bokk kon benn mbokk yoo xam ne yoo xam ne moom lañ ko xamee woon innaka la tasilu rahim jokk bokk nag bu ñu ko waxee bokk na ci yi nga xam ne amul lenn luñ ko firee loo xam ne da nga naan lii rek mooy jokkoo ak bokk wax dëgg yàlla nangam ku ko def jokkoo ak bokk bu ko deful jokkoo ak bokk dégg nga kooku dafa dellu ci li ñu tuddee oof moo tax dañuy wax ne mooy al ixsaanu ila al aqaaribi ala xasabi al waasili wal mawsuuli da ngay rafetale jëm ca jege ñaare la loolu mi ngi delloo ci yow situation ba nga nekk yow bi rafetal jëm ci ñoom ak da nga rafetal jëm ci moom moom ban situation la nekk kon kenn bokkul ko kenn am na koo xam ne jokk ak moom ak bokk li ca gën ma nga jox ko alal am na ci koo xam ne la ca gën mooy dem si yaare bu nuyu dama doy na bës soxlawul sa alal soxlawul sa lenn waaye nag bëggul nga fàtte boo seetlee sa tànk dikk ba ak ko nuyu ko ne ko tey dama la seetlu borom seet bi loolu doy sëkk am nga ko yàlla yi koo xam ne jokk nga ak bokk am na koo xam ne xiit na lam soxla mooy yow ku ko koy defal nga ñëw defal ko ko boo xëyee jaar ko te dañ koy bari mu néew ñu baree ko borom seet bi dañ ko dalal dañ yi def parce que màggat la tële na baree ko ay pexe nga ñëw defaral ko kii yëpp lalal ko kii taalal ko ci waaye dem jeex loolu mooy jokk bokk kon kenn ku nekk fa nga toll yow mi jokk bokk gi am na loo man loo xam ne kii ngay jokk bokk gi moom loolu gën a aajoo loolu nag kenn ku ne yaay nattale yow lan nga gën a man ndax yow góor gi borom kër ma la wax ne xëyal nga bale diw sàngam kër fóotal ko nangam taalal ko ci waaye war a loola am na leneen loo mën a def loo xam ne moo gën ci moom loola waaye keneen ka ca desit nga xam ne am na mooy defal yooyu yëpp jokkoon ko ak bokk du bu mooy nga ñëw ko ne ko tey damaa ñëwoon pour bale seen la démb mu ne maa ngi sama nit ñoo xam ne bu ñu lay balaa jël téléphone bi bala nit bu yàgg ko def am na leneen lu soxla ci yow bokk ci loolu amaana kooku bokk si yaare doy na amaana boo yëkkati dara tey ci loxo loola moo gën a seet xolam kon jokk bokk kenn ku ne kenn ku ne da ngay xool nu mu gën a aajowoo nga doxal ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moomu la ko daan defee boo jàngee siiraam ci màkk ak ñi ko waroon ci bàyyi taxaw yee dinaa day mag lañ ci moom ak ay doom yi bàyyi kenn ku ne fexoon na ko am sa digganteeg moom loo xam ne yaa ngi koy sàmm sa digganteeg moom ci kóllëre boo xam ne mi ngi la koy defal moo tax mu ne ko waat naa ci yàlla ne yàlla du la toroxal la mu ko ci jëkk a wax nag nit nekk la tasibu rahim yow da ngaa doon koo xam da ngay jokk bopp wa tasduqul xadis tey loo wax dëgg la kenn musta jàpp benn wax boo xam ne mas nga koo wax nit mu sàmm ko dox saytu ko seet gis ne la nga wax dëgg loolu musul am ñaari mandarga yoo yoo xam ne day wane ne yàlla du la toroxal wa taxmilu kalla da ngay fekk ku lot ba mënatul dara moo xam lot ci alal la moo xam lot ci askan la néew fa doole du mu rànke fi gërëm ba mu nekk wala lot ci wér gi yaram wala lu mënoon waaye da nga fekk ku lot ba mënatul boppam dara nga ñëw yëkkati ko ba mënal boppam dara kon da ngay jàppale ku tële da ngay jàppale ku tële wa taksibu almaalum wa taksibu almaalum boo ko firee ne ñaari mbir ndax yooyee ba dafa ñëw ci ñaari kanam wa tuksibu ak wa taksibu bu dee wa tuksibu almaalum mooy da ngay fekk koo xam ne ku ñàkk la nga fexe ba mu mën a fàmm waaw wutal ko nu mu mën a def ba dem liggéey wutal ko nu mu mën a def ba dem liggéey loo xam ne dana ci mën a jàpp ba dem liggéey loolu mooy dugg si bi maalum boobu nag li tax borom xam-xam yi bi ci des moo gën a dëgër bi may bëgg wax moo gën a dëgër moo di wa tag sibul wa tug sibul maalum su fekkee dañ koo firee ne mooy nga fekk ku ñàkk nga ñëw jàppale ko ba mu am lu liggéey nga mu dem liggéey kooku day mel ne dafa baamtuwaat li mu waxoon léegi ne ma tax lilul kan ndax loolu daf ca waaye wa tag sibul maalum mooy ab liggéeykat la maanaam da ngay fàggu ba mën a fekk alal yoo xam ne ku dul yow mun koo am nga fàggu yow ba am alal yu mel noonu boo ko amee rek pour gisal biir naa kooku mooy wax ak si lu maaxul moo tax bunt boobu dafa doon bunt bu am solo boo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu yàlla waxoon moo di liggéey dana musul am yenn jamono yoo xam ne day xëy rek toog fas ko ay loxo kenn ku rek xam ne du jaar fépp sàmm na ko jur ci màkk commerce na ci jamono boo xam ne fekk guróon soxnaam si ñoo Xadija bokk na si ñim daan commerce Xadija daal ko jox alal mu dem ba Saam xam ne diggante bu soree jaay fa jënd ko indi góorgóorlu ba doon koo xam ne fàggu nag ñëpp xam ne kii liggéey rek la ko am jot moo tax arab yi ñu am kaw kaw kenn ku ne xam na ne arab yi ci seeni wax yi lu ci bare bare bari lu mel ne lii di xadis ak wax yu saxaaba yi ñu mel noonu dañ koy mën a firi benn kaw kaw ci naar yi dafa doon tagg nit ci arab yi mu ne kaana aksabahum li maabub wa aataahum li mahbub kaana aksabahum li maabub wa aataahum li mahbub nee na diw sàngal ay mboolem moom askanam moo ci dàqoon a fàggu alal waaye moo ci dàqoon a joxe alal itam ci ku ko aayoo kon ñaar yooyu ngir ñu mën a tagg doon jàmbaar ci fàggu alal faaw beneen bi ci des nag doole ko ci maanaam nit ki gis ko dëgg rek ci ne ñëpp moo ci dàq commerce loolu waaye bi commerce ba am na lu mu doon def moo di ñëpp xam nañ ko yiwam ak jëf bu baax yoo xam ne ñu koy def kon foofu lañ koy tagg ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ni'mal maalu saalih wa rajulu saalih alal bu baax bu teg alal bu lew bu tegee ci loxo nit bu baax nee na loolu amul morom dara gënul loolu alal bi nga xam ne dafa doon lu lew ba noppi tegee ci loxol nit bu baax nee na loolu lu baax a baax a baax dara gënu ko ndax alal yooyu dana dugg ci anam yoo xam ne bu ñu duggee rek julli yëpp danañ ca danañ ca jëm kon li ko wax nag wa taksibul ma'lum mooy da ngay fàggu alal yoo xam ne kenn amul woon la wala ñu amul woon la nga fexe ba mu am su ko defee leen nga def ko fi sabilillah mu tegal ko ca ne ko wa tartil dayfa ngay deel deel gan ngay beerdeel gan gan beerdeel ko mooy jox ko mu lekk ba rek wala bu lekkul ba rek la nga am yow nga indi bu ngeen bokk lekk bokk maanaam ba sa doole toll nga jox ko lool waaye dañuy wax ne beerde ñu gën ci beerdeel gan mooy jox ko loo xam ne loolu la ko daan gis bëri maanaam li mu koy lekk bëri fekk lu bokk te la muy dundee moom te fekk bëgg nag wóor na la ne nam na ko fekk ni ko loolu leneen mooy benn bi jëm ci weer bi am na ñoo xam ne guddi bëccëg ceeb rek la ñuy lekk kooku bis bu la tane si woon nga indil ko laax alhamdulilah indil ko tey loo xam ne gëj na ko ci yàgg yàgg yàgg doonte fekk boobu nag lu bari ci nit ñi yoruñu ko ndax dañuy defe ne daal am gan wax dëgg yàlla dana loolu laa indi jox ko loolu laa doy doy doy na waar li tane mooy nga dem day nangam def nangam def nangam xam ne sonn nga ci waaye fekk na am na lu yées coono ba nga ci coono sonn boo xam ne boo ko joxoon loola moom bu ko gëmee sax nga gis na loolu nga gis boo xam ne leeral rek moom ñu leeral soxla kon loolu dañoo wax ne kenn ku ne lam gën a aajowoo soo ko ca beer leeral kon kooku mooy benn bi gën ci benn bi waaye ñoom ñëpp dañ bokk nag nga xam ne soo ko defee yaa wàcc mooy la nga am nga bokk ko moom jox ko ko ba mu jeex bu doon ngay jeex ngeen bokk ñëpp bokk ko ba mu am ba tax ñu doy kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la la melokaan yooyu Xadija radiyallahu taala anha wax ne ko wa tuidun da ngay dimbalee ala nawaib al xaq ñi nga xam ne dañoo dem ba jaayee li ñu tuddee jiy la ñu musiba wàcc ci seen kaw seen ñu kër lakk wala seen alal xaagaagal wala ñu xëy xëy daal luy dal ci seen kaw ñu yàqu ne ñooñu itam da ngay taxaw ànd ak ñoom ba seen mbir baaxal kon lii la ko Xadija wax waaye bi waxee ba ba àgg ni yemu tam fan talakat bi mu daal di jóg ànd ak moom kon talakat mu départ bii ànd ak moom kon talakat bii Xadija xatta atat bii Waraqata bnu Nawfal ibn Asad ibn Abdul Muzza mu ñëw ci góor bu mag bu ñuy wax Waraqata bnu Nawfal mu ànd ak moom dikk وهو ابن عم خديجة أخي أبيها nee na wax ibn Nawfal moomu doomu bàyyi la ci Xadija ndax Waraqat ibn Nawfal ibnu Asad Waraqat Nawfal ibnu Asad ko jur Xadija bintu Xuwaylid ibnu Asad Xuwaylid moom jur Asad jur ko kon Asad mooy seen maam ñoom ñaar ñëpp Asad ibn Abdul Uzza mooy bàyyi Xadija mooy bàyyi Waraq kon Waraqat doomu kon bàyyi la ndax seen ñaari bàyyi bu bokk benn bàyyi moo tax ne ibnu axiha ibnu axi abiha mooy doomi mbokkum baayam donc doomi magi baayam wala doomi rakki baayam waaye nag ànd ak ne doomi baay la woon ci moom moom Xadija war a maanaam mii góowuñu woon ci ay at war a ko góor bu mag la woon boo xam ne màggatoon na ba yàgg lool lool lool bari expérience rek mu jaar doon ne ab jàngkat moo tax mu ne mu ne wa kaanam raan nekkoon na di nit koo xam ne te nasara fi jaahiliya nee na ci jamono yu jaahiliya moom dafa duggoon ci nasraaniya ndax dafa bokk ci ñu gisoon xërëm yi ñuy jaamu màkka mu naqarlu ko ba génn gàddaay ànd ak amul bin fay ñu dem ba Shaam biñ demee di xool boobu lu ma tane ci diine ñu fekk fa ay nasaraan ak i làmpe ñu jàpp ne loola moo tax dañu daay dugg ci ak nasaraan wa kaana yaktubu alkitaaba alarabiy nee na daf daan bind bindum arab wa yaktubu min al injil bil arabiyati nee na daan jël injil di ko bind ci arab mooy bible ma sha allah an yaktub lu soob yàlla mu bind ko am da ci daan bind ko nekk wala bi ci saxiihul buxaari daf ne wa kaana yaktubu alkitaab al abraani nee na làkk ko hébreu la daan bind mooy làkk bi juif yi di làkk waraq la ko daan bind kon kon daal liñ ci dégg boo boole ñaari wax yëpp mooy daf doon traduire injil da ko doon jël fekk mu nekk ci kàllaama ibraaniya mu di ko doxal di ko indi ci kàllaama arab kon kooku ci bokk na ci yëpp yi nga xam ne war a xalaat ko def kon jàngoon na ñaari làkk yooyu yëpp wa kaana cheikhan kabiran nekkoon na it di am màggat mu mag maanaam ak cheikh bu ñu ko waxee fii ci ay at lañ ci dugg ndax cheikh dafa am ay maanaam yu tabb day am cheikh ci am at am cheikh ci xam-xam ak orma ak cheikh ci aw askan fii ci suyuuxul qabila la bokk su boobaa orma ji rek moo tax ñu tudd ko cheikh waaye moom bu fekk ne dafa mag ci nit ñi kii nag li ci jub mooy gaana cheikhan kabiran maanaam màggat la woon mu ñu mag a mag xat amiya nekkoon na sax sin naxam kon ba mu daan bind bokku la jamono yi maanaam ca la weesu kon ca lay wax moo tax ne daana bind arab nit ko xale ci injil di ko bind ci arab loolu mooy kay loolu sin naxam qaalat lahu xadija ay am ay yow sama baay foofu jëfandikoo yow sama baay tax te kenn ku nekk xam ne ne waa tal baay waaye loolu pour format nit la ngir at ya at yu mag yem ku magee moo tax mu ne ko yow sama papa waaye bu dee dañoo dellu ci askan ba kooku mag a mën am doomu baay rek la waaye nag loolu yàgg na fi mooy nit ci mag la ba jéggi dayo nga di ko wax sama sama baay te fekk boo ko seetee yow mag lay doon ci yow leneen isma min ibni axiika déglul sa doomi sa doomi mag ji wala sa doomi rakk ji mag jeeg rakk ji mooy kan kenn ku nekk xam ne ne abdullahi mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullahi ak waraqatu bnu nawfal abdullahi bàyyi yonent bi ak waraqatu bnu nawfal boo xoolee seeni maam seen seen silak seeni maam ba àgg ci Qusay ibn Kilaab ñoom ñaar ñooy tolloole diggante bi ñoo tolloo kon waraka ci boppam day daal di doon doomi baay ci Abdullah kon bu ne ko ibnu axiika maanaam sa doomi mag ji wala sa doomi rakk ji kon su boobaa loole day daal di doon am maanaam qaala waraka ibn Nawfal waraka ne ko yabna axi yow doomi sama mbokk maa daa tara lan ngay gis maanaam li la feeñ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رآه mu nettali ko xibaaru li mu gis fa qaala lahu Waraqa ne ko haada naaquus alladi unzila ala Muusa sallallahu alayhi wa sallam annaamuus suñ ko waxee ci arab mooy ki nga xam ne mooy ki yore secret yu baax yi secret yu ñëw saaxibu sirri fil xëy kooku lañ tuddee annaamuus nga xam ne lépp xabaar bu baax la wax ak ñëw la moom lañ ca wóoru di ko ko denc wax kooku lañ tuddee annaamuus comme ni nga xam ne alja aljaasuus mooy ki nga xam ne saaxibu sirri fi sharri ki nga xam ne mooy denc secret yi nga xam ne musiba la kooku moom la ñu tuddee jaasuus defe naa loolu moo tax espion yi ñu lépp dafay yow assis maanaam nga xam ne jaasuus la ñu tuddee ndax doxuñu jàmm dina gëstu mbiri jàmm moo leen tax rek tasaare ko yàqal leen kon yooyu mooy sa la tudde jaasuus kon mooy sa xaaru jaasuus waaye borom xam-xam yi ni ko ndaw bi nekk dëppoo nañ ci ne jibril alayhi salaam dañ ko tudde annaamuus moo ci boppam dëppoo nañ ci ne it waraqa moom la jublu ci li mu wax nii haada annaamuus li mu ci jublu mooy kii mooy jibril mi daan wàcc ci Muusa alayhi salaam mu des ci benn question moo di su fekkee ne Waraqa ibn Nawfal ci nasaraan yi la bokkoon jamono yooya pour tax boo ko Isa dana jéggi ko dem ca Muusa alayhi salaam ànd ak ne Injiil la gën a xam ci diine nasaraan la nekk kon lu tax mu jàll ci diine ci lu tax mu jàll ci Muusa alayhi salaam am na ñaari tontu benn bi moo di diine nasaraan ci boppam cosaanam mooy diine yahud moo tax boo leen xoolee di leen di seetlu ñaari xaaj yu tudde al ahdul qadim ak al ahdul jadid muy jamono ji jëkk yëpp jamono ji mujj ci su fekkee ni koy firee yooyu yëpp boo leen xoolee da nga gis ne bible bu cosaanam mooy téere bi nga xam ne moo wàccoon ci ci juif yi rawatina bi nga xam ne moom la nasaraan yi yor tey lu ci bare bare bare cosaanam ci ñeneen la dellu su dul loolu it yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la dëggu wala yonent bu jiitu bu nekk ba mujjee ñëw am na lu mu jële ci yow rawatina lu jëm ci wàllu pas-pas ak diine ñoom yëpp ñoo ko bokkale kon la daan wàcc ci Moussa rek mooy la doon wàcc ci Isa waaye nag am na beneen riwaay boo xam ne daf caa wax ne kaana yanzilu ala Isa maanaam foofa Isa alayhi salaam la ko war a ko wax waaye li wér daal moo di contradiction xamul foofu ndax ki doon wàcc ca Isa mooy ki doon wàcc ca Moussa ñaari yoon lu mu ci wax bu nekk moom la ndax kenn kenn muy Jibril moo doon wàcc ci Moussa alayhi salaam di ko indil wax moo doon wàcc ca Isa moo doon wàcc itam ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom waa ko mu teg ci ne yaa laytani fiiha jada an yaa laytani mooy ak xam ne xool fiiha akunu fiiha jada an te neexoon jamono yooya ma nekk ci ndaw ak jazaaw buñ ko mos a wax ci ci xar lañ koy wax ci day day mel noonu am na jazaaw mooy tënk ko la kuy mu ndaw wala mel noonu loolu ñu tuddee ak jazaaw waaye rek kii dafa ko jëfandikoo ci nit muy ndaw boo xam ne daal toll na ci di tëb di dal maanaam ak a neexoon jamono bi fekk ma am kàttan yaa lay kër yi ak a neexoon man ak kuutu ma nekk xayyal di aji dund xiina yuxrijuka jamono yi nga xamee ne dana la génn ne xaw ma mosoo génn ah borom xam-xam la mu ne ak a neexoon may dund jamono yi nga xamee ne sow nit dañuy génn màkk qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awa uxrijiyahu ndax ñoom dañ maa dara génne di génn ko ci wax yi war qaala naam qaala waraqatu naam waaw waaw lam yatti musta indi rajulun nit qattu mukk bi ma jiite bihi illa xudiya lii nga indi nit musu koo indi lu dul ay noonam bari maanaam fekk di nit ñoo xam ne nekk ci caaxaan ba ci lëndëm nga ñëw bëgg a leeral bëgg a indi dëkk ku ko def moo wa in yudrik nii su fekkee ne dab na ma maanaam fekkee na maanaam dab na ma yow yow ma ko sa gis su fekkee na sa gis fekk na ma fi man suuf ka danaa la dimbali nasran dimbal muazzaran dimbal bu dëgër bis ba nga xamee ne ca lañ lay génne màkk su ma fi fekkee danaa la jàppale kon boobu la xadis ba daal yem ci yeneen riwaayaat yi yéen dafa toog diir bu gàtt mu war a toog bu ndaw kon gannaaw loolu daal di baax bachak ne war a xam ku gëm la maanaam ndax xam-xam ba moo ko may loolu moo tax bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mandargaam dafa daal di am lu mu wóor jéem na ne ko kii kat mooy yonent bi nga xam ne moom la jàngoon ci téere yi ba jàngaale ci sax ay xam-xam ci détail yoo xam ne yu koy waaroo mooy dem ba xam ne moom danañ ko génne màkk bu dem feneen xadis la nag boo xam ne bu bari ay njëriñ la waaye danañ jukki yenn ci yi nga xam ne mën nañ ko ci jëriñoo incha allah loolu moom ñu ci question yi xadis bi firnde ji wér la maanaam dalilum sariyem ci ne li jëkk wàcc ci alquran mooy iqra kon li jëkk wàcc ci alquran karim moo di iqra bismi rabbika alladi xalaq bashar allamahu alqalb allama al-insan ma lam ya'lam kon xeetu lislaam ci boppam xeetu jàng la xeetu jàng ndax téeréem la ci jëkk wàcc mooy jàng la kon jàng dong dong dong moom war ak jëfe kon xeet la woo xam ne war ko sàggane jàng dem na nag ba ci jamono joo xam ne jàng xaw naa tumu ràcc maanaam nangoo toog di déglu ñuy jàng ñu jàng leen yor sa téere yor say kay lii ngeen di def loolu xaw naa tumu ràcc ci jamono nit ñu bare bare bare yeneen mbir yi moo leen gënal jàng man ngaa woote conférence parce que du nag yi ci biirum ànd doo ñëw ñu déglu ñu animé def nangam def nangam ñu bokk toog moo seen coow ñu tasaaroo def waaye nag jàng ñëw toog yor téere bi jàng boo ko jëlee jëlaat téere ba xoolaat la nga jàngoon ba miin ko mu doon ak xam-xam nga tàmbali ko jël boo léegi nga defaat feneen jàngaat boole ca loolu xaw na tumurante ci jamono su ma nee tumurante bi ci jamono tudd moom fii mu nekk moom rek ci Sénégal waaye ci adduna bépp man loola laa gis lu dul koo xam ne suñu borom tabaraka wa taala baaxee na suñu xel loolu ci xam-xam am na nag ay nit ak ay ndaw yoo xam ne xam-xam jaral na leen ak lu bare bare bare bare waaye nag li gën a bari ci nit ñi moom jàng dafa diis ci ñoom bu dee déglu daal ak gerte yëpp yi baax nga xam ne moom yu yomb la yooyu moom mën nañ koo def waaye bu dara su jàng jëlu téere jàng ko nag ba mu jeex nga jëlaat beneen loolu xaw a jafe ñun ci jamono léeg-léeg xadis yi da nga ci dajeeg xadis bi mel nii xam nga alxuraan yi ñu ko wàcc mooy jox kon suñu def xeetu jàngal waaye boo xoolee ci xadis yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko muy waxee ne inna ummatun ummiya la naktubu wala naxsib wa chahru ma kataba mu ne noonu aw xeet la moo xam ne ay ummiyu la ummi mooy koo xam ne yàlla bind mu ne noonu bindulu kaltimu kon loolu day daal di ko mel ne la xawal juyoo tuuti wala xool ci kaw day mel ne doon xeet boo xam ne li jëkk wàcc ci téere mooy mooy jàngal ba noppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais noonu aw xeet la boo xam ne ay ummi yu dañ maanaam jàngul kon day mel ne contradiction la am ci diggante boobu waaye amu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam hadis bi muy waxee ne noonu aw xeet la boo xam ne bii mu calcul dafa am ñu doon tontu moo di ñu yaakaar ne weer lii di feeñ weer wi ñuy jaamu yàlla manees na koo xam kañ la fee teg ko ci kaw ak xisaabul felek yi muy gëstu ak di bind ak di calcul ba ne weer wi feeñ na lu daal di ci mum wala lu tabaski ci loola la doon dàq mu ne noonu aw xeet la boo xam ne loolu usul wàll lu def moom kon ak xadis bu ñëw bu mën a doon bu nekkee ci benn daayira di ca wax pour ko génn daayira boobu du woon feneen noonu daal bu nekk ci buntu yor say yëf di calcul wala nga ni moom naa moom ba ne weer waa ci kaw asamaan si mosuwaa dañ koy woor déedéet mun foofu moom jàmm ko bindu boo ko sax jàmm bindu waaye jàmm bindu mu calcul la wax waaye jàmm ko mosu ko dàq laa naktub wala naxsub maanaam bindunu calculunu bu dee ci bunt boobu beneen bu mën a doon ci bunt yiw yi la boo di ca fekk ko ñu jàng di bind di di def loolu léeg-léeg nit ñi lañ ci def lu ñu mag mooy fekk xaalis boo xam ne dafa am solo ak loo xam ne boo ko tax a ñu génne ko yóbbu ko ci leneen waxoon naa ne xaalis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne antum a'lamu bi shuuni duniyaakum yéen yéen a gën a xam seen mbirum àdduna am na ñoo xam ne wala ilmaaniya lañ def maanaam laïcité ñu ne kon nun lépp lu aju ci àq suñu bopp ak wàllu laïcité mën nañ ko defal suñu bopp ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen a gën a xam seen mbirum àdduna waaye xadis boobu fan lay wax ak fii lay waxee bu fa dem moo tax bépp texte boo xam ne génne nga ko siyaaxam muy la ko taxoon a jóg génne nga ko rek dugal nga ko ci waxam ne tax ko jóg yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw Madina fekk nit ña ñuy def tàndarma yi ñu tudd góoral mooy tampiix jël ci bii tàndarma dugal ci bii xàmmee muy góor yaa muy jigéen ñi pour mu meññ bu ñëw gis ñu koy def moom foofu loolu waa màkk ñoom duñ def tàndarma yoruñu mbay nit bi daal moo ko jaaxal bu ñu nekkoon de yaakaar naa ne su ngeen ko bàyyi woon it du tee mu meññ ah xam yàlla day wax ñoom ñoom jàpp nañu loolu diine li ñu daal di bàyyi waxtu ñor ñëpp dara ñëw ñu ne ko ah tàndarma yi paquet yi la nga waxoon def nañ ko nit ñi mu ne leen noonu rek laa ko yaakaar antum a'lamu bi shu'unikum yéen seen mbirum àdduna yéen a ko gën a xam kon ci mbay mi lay wax kon bu dee ci cadre mbay naa la nekk ci usine ba sa machine bi ndax ëllëg bu mag lay doon wala ëllëg bu ndaw lay doon sa ordinateur bi bu ndaw lay doon ndax portable lay doon wala sa portable am yooyu yaa ko gën a xam yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi la ko waaye nag mbirum àdduna ak nit yi lu baaxal àdduna lu koy àtte ak ëllëg àllaaxira lan moo koy baaxal ko kenn wax nit mën na ko gën a xam yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu ci yàlla lay doon kon li bëgg a wax mooy bépp texte boo xam ne ñëw na di wax ci lenn bul ko génne lenn loolee ñu ko ci yeneen am nañ misaal yu bare bare yoo xam ne ñun sukkandiku nañ ci di tasaare ak réer loolu lenn la am ñaareelu njëriñ bi moo di ak tadarruj fi taalim kiy jàngale dafa war a def étape par étape jàngal ko li gën a yomb teg ca la gën a jafe tegaat ca la gën a jafe tegaat muy yéeg ba bu muy àgg nag ci xam-xam waaye loolu dëkk rek tàmbalee ci kaw boo tàmbalee ci kaw ngay wàcc kuy yéeg ci suuf di tàmbalee ci kaw moo tax lam njëkk a tàmbalee mooy gént bi gént yi ñëw ñu dem di wéet di xalaat ci borom dem ba mu yàgg ngir mu wàcc ci moom digal ko mu jàngal di ko jàngal ngir ñëwaat digal ko mu dem daa wàcc yaa ngi loolu des la foofu la kon noonu lañ defee moom tadaru ñu yéeg ndànk-ndànk mais su njëkk woon njëkk rek toog ci kër bu yàgg balaa njëkk bi ñëw rek solo ko rek ne dañuy xalaat ci biir kër bi kon lu rek mën naa xew waaye am na borom bi tabaraka wa taala yu mu def ci xolam ak yu mu ko xiirtal ngir préparé ko ba bis bu loolu ñëwee xëy sax mën naa métti parce que métti woon na ci croisement bi waaye nañ ko wax ne fenn fi ndax su fekkee ne ànd ak tamit it boobu yëpp ak nooyal gi yombal gi yëpp téewal bis bi ñu ko dalee dafa if tëdd ne sànq leen ma kon kenn ku nekk xam na ne su njëkk woon njëkk benn boobu mën naa indi ay jafe-jafe yu mag la ñetteel bi فيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه kiy jàng ki muy jàngal li ñuy jëfandikoo ci ay moyens tey pour pour pour di yëgal ndongo bi daal élève bi étudiant bi ci biir classe am su ay waxtaane boo ko amee wala ñàkk a teewlu wala yu mel noonu nga yëngal dara ba mu bàyyi xel fexe ba am xelam nekk ci lenn loolu ci mooy yi nga xam ne jàngalekat yi dañ koy jëfandikoo loolu ci la ko war nañ koy jëfandikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee iqra yooyu ñu jékki-jékki wax ko ko ki yable muy borom bi tabaraka wa taala bi yebal malaaka nga xam ne moom du jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos ko jàng mu jiitu malaaka bi yebal kadalik xam na loolu waaye lu tax mu digal ko di ko jàngal bi mu noppee mu téye ko téye bu dëgër boobu mooy pour mu yëg ne am na lu am solo loo xam ne mooy bëgg ñëw ci moom kon loolu na ko bàyyi xel bu baax a baax nga génne xelam ci leneen lu dul loolu ndax lii di ñëw mu mën ko taatal yóbbu ko kon kooku la ñuy tuddee ci ci mooy yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo tey awaamil tarkiis yi nga xam ne nit ki da koy jëfandikoo su dee jàngale ngeen ki muy jàngal man def concentration boo xam ne lii ñëw dana ko mën a comprendre ndax dara bari nag booy jàngal nga toog bi sa kanam bët yaa lépp njëriñ ko waaye fekk na xel na mu nga feneen wala mu ngi calcul dara wala yu ko bàyyi woon wala yu bàyyi woon loolu xam ne da ngay jàpp ne moom mii fii la nekk waaye fekk ni jëmm ji moo ko nekk waaye xel la ñëw mu am nag moyen yoo xam ne boo ko jëfandikoo jëmm ji dana fi nekk waaye itam xel bi si jëm boobu itam dana fi nekk yooyu nag ay moyens yu bari la yoo xam ne léeg-léeg ci wax yi lay doon léeg-léeg ci ji mel noonu léeg-léeg nit toog di jàng ñaar mu nelaw su ko defee yooyu yëpp li ñu tuddee awaamil tarkiis jëfandikoo ko muy moyen yoo xam ne day tax nit di concentré wu loolu ci la bokk waaye nag ñeenteel bi mooy laysa dalilan ala urfi muallimin ala al-awlaad def nit dañuy dégg di tegtaloo ci tey bu dëgër boobu ci biir tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne bala xam ne jëf nga dégg ko ne la kon gone yi jàng alxuraan mën si ne ko déglu def ko def ko dalil boo xam ne ci la ñu war a sukkandiku pour ne alxuraan koo jàng ku nekk dañ laa war a def lu métti métti ndax nga mën koo dégg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko defoon métti mu door mën a def alxuraan waaye fekk na loolu du noonu moom demul noonu yonent bi ñaata yoon lañ ko def loolu gis bu njëkk bu teg dëgg la alxuraan bi mu daan wàcc ci ñoom benn bu nekk dana am gisaay boo xam ne bokk tëj yeneen yi doon ñëw ci moom waaye loolu lii lu te dañ koy dóor lii wane it ne jubluwuñ ci ne mashruur yëpp dóore ak def xol moo ko tax a jóg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam da doon jàng saxaaba yi alxuraan amul ci benn saxaaba bu lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na maa dóor ngir aay boo xam ne boo ko jàng boo ko loo ko kon foofu benn dalil nekk boo xam ne ci la ñuy sukkandiku pour teg xale yi yoo xam ne dañ xale yi ànd ak ne jàngal xale sax boo ko seetloo maanaam bokk na ci ku gën a mën a gàllal kon mooy dóor ko dóor gi dana jur benn fit bi dana daal di koy jóge te kiy jàng li muy jàng nar a moom lépp da ca xel bi da ca war a nekk fit wa nekk fa dal nga nekk fa ngir li muy jàng mën a gaaw a moom waaye su fekkee ne fit bi ci boppam nekk bi nga xam ne bu daal yëngoo sax bu jàpp ne kooku ci kaw la jëm kooku mën naa toog rek tiim tiim li muy jàng di def nii nga defe ne mi ngi fi fekk xel bi li muy nekk mooy yàgg kay day dal ci boppam day yàgg yàgg yàgg yàgg ñetti bind sax pour mu mokkal ko dana jafe lool tey jamono yi muy jàng jàpp na ne dafay jàng mokkal ndax ñi bañ koo dóor kooku musiba bu mag la ci wàllu éducation am na leneen lu ñu war a def ci xelam moom xale bi ne moo tax muy jàng lu dul mucc ci ay dóor loolu moo tax ab xale mën naa jàng alxuraan bu mokkal bu ko jógee jeex weer sax balaa koo xam boo dellusiwaatee fekk la moo ko doon dem na lu tax mooy dóor yi xam ne mucc na ci léegi te dóor yi moo taxoon mu di ko jàng yooyu yëpp ay problème ci wàllu éducation yoo xam ne borom daara yi war nañ ko bàyyi xel ci xale bi xale bi jàngalekat bi moom ci boppam war naa doon buñ formé formation boo xam ne dana xam fan lay jaar ba xale bi wekk ko maanaam respecté ko ba noppi du ko ragal maanaam res respecté ko ba noppi nekk xaritam loolu nag lu jafe la kuy formé wu ci wàllu éducation ak wàllu jàngale boobu maanaam benn nga doon koo xam ne da lay respecté ba ragal la faf ba du xamante ni muy def wala bu doon koo xam ne da lay yàq faf ba du jàng équilibre bi nekk ci diggante bi rek nga xam ne du la ragal waaye dana la respecté foofu nga liggéey bi nekk ci jàngale loolu nag dafay dóor a koy def dafay xubbee koy def di dineen koy def waaye am na ci wàllu formation loo xam ne jàngale ko daal ci loolu ñu xam ne daal loolu moom nekkul dalil boo xam ne des di su koy pour pour dóor xale yi wala loolu leen door yoo xam ne yu metti la te gis nañ ne lu bare bari xale yi jël ko bañ alxuraan ba faw lu ci bare bari ci daara yi leen di topp loolu lu ma la wax tamit danañ ci jëlee ci xadis bi ba tey anna daaciyata fi xaajatin ila kathirin min alsabri waltaxamul kii woote jëme ci dëgg jëme ci alquran jëme ci sunna aajo woon luñ bu bare bare bare bare bare déggal ko li mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam yati rajulun qat bima jibti bi illa uji lii nga andi nit bus ko andi lu ay noonu bari li indi mooy lan mooy dëkk mooy leer mooy jël nit ci jaamu bi xew bi caaxaan dugal leen ci jaamu suñu borom tabaraka wa taala loolu nag kenn ku nekk xam na ne yonent sallallahu alayhi wa sallam lu nekk tey na ko ci moom ci saxaaba génne nañ leen lor nañ leen dóor leen dóor nañ seen i dëkk fab seen i alal ambal doole yi lu lu nit di daj ci xeetu métti bu nekk yonent bi ak saxaaba daj nañ ko ci njëlbéenu lislaam kon daaw bi noonu la defee al ulamaa nag warasatul anbiyaa ñi nga xam ne mooy borom xam-xam yi ñëw gannaaw yonent yi seen dono ci coono boobu yi ak noonoo boobu mi ngi toll ci fay toll ci tasaare dëkk ku ci nangoo tasaare dëkk bi boole boole ko ci njaxas faaw lu mel noonu nag nga gis kuy kuy jaxase nag ànd boo demee fii fexe ba ànd ak ñoom dañu ko dem ba ànd ak ñoom dañu ko lu mel noonu mën nga caa mucc ndax tasaare bi ko la kon nit mos nga andi lu mel ne li nga andi lu dul ñu doon mu bari ay noonu kon wootekat bi faw war naa doon muñkat war naa wattandiku yi noonu yooyu yàq ko daawa ndax noonu bi ni nga mën a yàqale sa daawa yu bare bare bare la bokk na ci mooy nga arrêté daaw ba wëlbati bi jàkkaarloo moom muy wax dañu dox koy wax delloo di wax lépp soo ko ak xuloo ko boo wëlbatiwul mën naa dem ba dépendre du ab daaw waaye su bokk ngay dépendre loolu bis bu ko defee yow jekk na yàq nañ sa daaw danay la tardeel da ci yeneen ngay nekk yu bokku daaw ak jàng def beneen bi dana la yàqal ci sa diggante ak sa borom ndax diine ji taxatul ngay jënd waaye dépendre sa bopp moo tax ngay jënd yooyu nag saa bu ci ak sa yàqal kon muñ gi ak bàyyi xel stratégie bi nga xam ne noon bi moom lay dikkee nga fexe ba mucc ci moom kooku bokk na ci liggéey bu woote kat lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne dañu wax ne bismillahi rahmani rahim al basmala bokkul ci alquran dañoo jàpp ne lii am tegtal la ci ndax malaaka bi kat bi mu dikkee néew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen bismillahi rahmani rahim iqra waaye daa ñëw rek ko iqra loolu ñu ne kon loolu day tegtale ne basmala boobu ci alquran waaye fekk na loolu du dalil du dalil ndax borom bi tabaraka wa taala jabar yooyu wàcceewul bismillahi rahmani rahim wàcceewu ko ci moom comme ni nga xam ne li des ci saa bi li ci des wàccewu ko ci moom allama l'insaan ma lam yaxlam foofu la yemam moom la des ci saa ba ñëwagul la mu jiitu nit ñi bisimilah rahmaan rahim ñëwagul après loolu ci la yóbbu yëpp wàcc na naa bokk ci alquran waaye kenn wax ne la wàccoon ci jotaay boobu rek mooy alquran lu wàccul ci jotaay boobu mooy alquran loolu kenn du ko wax ba tey فيه دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء jikko yu baax ak def lu baax ci doomu aadama yi maanaam jaamu yàlla ci ñoom bokk na ci yi nga xam ne dafay musal nit ki ci musiba day musal nit ki ci musiba xoolal Xadiija radiyallahu taala anha yim li ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ko mu nekk dalilam ci ne kii yàlla mu ko toroxal ndax lu baax li muy def ci biir askan kon kii def lu baax lu mel noonu te yàlla tax kooku kenn du ko toroxal wa fiihi madhu al-insaani fi wajhihi fi ba'd al-ahwaal li maslaha manees naa jëriñoo ci xadis bi ba tey ne nit ki manees naa wax lenn ci yu baaxam ngir lu ko laaj su amee lu tax loo xam ne lu ñor la ne lii cosaan mooy nit ki kenn du taxaw ci kanam di ko lakk loolu baax dana gis sama wax ne solo da koy tere waaye nag am na cause yu ñëw ay asbaab yoo xam ne yu ñëw la yoo xam ne nit ki mën naa fàttali nit ki ne ko yow yaa ko nangam yaa ko nangam yaa ko nangam fekk lam ci jublu maslaxa la boo xam ne sharia la moom li koy leeral mooy bii ci tegu moo di takniisu man xasalat lahu maxaafatun min amri wa tabshiruhu dikri asbaab salaamati lahu ki nekk ci njàqare wala nga def ci aw tiis nga ñëw di dalal xelam di ko fàttali ba yow kat bul fàttali yàlla ko lan lan lan lan kon man sa xel mën naa dal su fekkee loolu moo tax nga tudd lu rafet la ci kanam su boobaa borom bi tabaraka wa taala dama rafet loolu lu baax lay doon loolu loo xam ne lu ñuy naan ñi lay doon li ñuy bañ ko nga jékki-jékki rek ñëw di takk nit ci kanam la kii moo defoon naa moom kii moo doon fekk la nga ci jublu yeneen la yoo xam ne bokku dëkk loo xam ne maslaxam diine la waaye su fekkee maslaxa maslaxam diine moo tax ak dalal xelam ak bégloo ko lu mel noonu loolu koo xam ne lu sori la bañ na. danañ ci jëriñoo it أن من نزل به أمر مستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه képp koo xam ne mbir dal la ci sa kaw charia bëgg na mbir moo xam ne diis la wala mu la jaaxal la nga seet koo wóor ci ne ak laa biir ngir yàlla rek moo tax mu koy nga sàkk ci moom orienté la loo xam nan nga war a def loolu loolu sax na ci sax na ci diine sax na ci xadis bi kon ndax gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bind ci ànd ak xadis bi jigéen la wala kii jigéen la dafa ñëw ne ko waaw lii lan la Xadija Xadija ca xel ma mu wax ko leen ko wax leen kon bi ñu mujj sax ci loolu la jëm moo ne ne fii di aazamu dalilin wa ablagu xujjatin ala kamaali Xadija radiallahu taala anha xadis bi dafay tegtale ne Xadija nit la boo xam ne nit ku spécial nit ki dayoo ci xeet bu baax wa jasaalati ra'yi ak xalaat bu dëgër wa quwwati nafsiha ak dëgër boo xam ne dëgër na ko moom ci boppam ba gaaw a jaaxle ba gaaw a jaaxle parce que beneen jigéen bu mu daloo ki nga xam ne mooy sa borom kër nga xam ne yaakaar na ne yow ci moom rek nga war a jëlee xalaat mu ñëw moom bis boo xam ne jaaxle na ba jeexal tàkk jigéen ñu bari nga fekk ñoom wàcc nañu benn xaasa moyen la ñu doon dañuy tax a sëñ maanaam dañ fekk weesu nañ zéro xamatuñ li ñuy wax dina jafe-jafe xamatuñ lu muy wax moom jeexal na yàlla waaye bu mu dikkee jeexal tàkk ma ne ko lu xewal nu may def ak ragal naa lu ma jëm moom foog la force bu gën a yëkkati ko mu door a jël si waat kon kooku soxna la soxna la su su doy waar la day tegtale moo tax ne ko noonu yu la ko waxee daf ne ko fii di aazamu dalilin wa ablagu xujjatin ala kamaali xadijata radiallahu anha wa jazalati ra'yiha wa quwwati nafsiha wa sabati qalbiha wa izami fiqhiha kon jigéen la loo xam ne dajale na ay melokaan yoo xam ne ni ko almiro mën naa muy waxee ñu doy waar bu dee ci wàllu xalaat xalaat bu rëy la bu dee ci wàllu ak dëgër dëgër bu rëy la bu dee ci wàllu ak sax xol bu dëgër boo xam ne borom lu gaaw a tiim borom fit la ak boole ko bu xam-xam ba kubati fekk ci naa maanaam lu dégg diine ànd ak ne diine ji lu bees la boobu teewul kooku ku dégg diine la ndax tegtaloo na ci ay dalil yoo xam ne xam na ne yàlla du toroxal kii fan la ko teg mooy seetlu ko ba xam ne jikko moo tax soxna jigéen maanaam ci kër loolu dina caaxaan maanaam su fekkee ne nit ku doon kam war a doon la mel nam war a mel kooku lu jub gën ci kër la ci ñëpp am bis bala ñu koo xam borom kër ga dafa ñoo jaaxle bul fàtte soxna soosu ñu doon umm sulay bu jigéen ñi doy doy waa yaayu Anas ibn Malik radiyallahu anhu soxla la soo xam ne li mu làmboo ci ay njëriñ ci ñi teel a dugg ci lislaam ci la bokk moom umu sulay buñ lay nekk ay jaar jaar da ngay da ngay yëg ne jigéen ci boppam ci kër am nay melokaanam yoo xam ne su fekkee ne melut noonu ak kër la ci boppam du mën a ko doon suñ demee ba jamono société bi yàqu wala lu bare bare gisatuñ ko fi boo xoolee bokk na ci taar yi seen wala quatre-vingt pour cent jigéen ñi ci boppam suñ meloon mel na kon mbir mi dana métti kon soxla na muy jigéen yoo xam ne dañuy jàng dund ñii xam ne nekkoon ku mu sulee lu fàtte lenn ci ay mawaxe lu rek bis bi nga xamee ne Abu Talha ñëw na di ko lal biñ demee ba ba Madina ndax moom ci ñu jëkk ak ñu jëkk tuub ci màkk ci la bokk boo ko def ñu gàddaay def xabas ki nga xam ne moo doon Maalik ibn Nadr bàyyi Anas bi mu faatoo moom daf ne xale bii nga xam ne moom laa xam ne fas naa ko yéene ñaan bu doon bu baax ba bis bu may amaat beneen jëkkër ba su ma yéene amaat jëkkër lu dul moom moom màgg ba suñ may bàyyi moom laay gisal ci may avant jëkkër bi faat moom dugg na ci lislaam bi ko jëkkee gis muy nekk ci lislaam bi def di ko nuru dana ko waaw yow da ngaa dugg ci diine bu bees ci maanaam hal sabati wala ko ndax da ngaa jàng na dugg ci diine bii ñuy woote bu bees mu ne ko danaa gindiku mu gis ko muy sa anas te xale bu tuuti la booba di naan mu ne ko jàngal laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ne ko waaw lii nag da nga ko yàq ko nekk xam ne ko mu defa الفاتحة تقدر بقول الجزر لأن الدروس مسيح كان يقول أنا استقمت جبت في المدينة أبو طلحة بنجي لي كل بلد dafa ñëw di bu baax la bu doon dañu xool ci àdduna rek kenn sañu la ne kenn sañu la dàq waaye nag xamal ne an tabu ushrik maanaam da ngaa doon kuy bokkaale te man ab jullit laa te jullit du dagat ci moom du dakk kuy bokkaale kooka loolu sax ci xolam mu dem di xalaat di xalaat loolu yàgg mu ñëw ne dafa bëgg a tuub bi mu ko ko waxee dafa ne boo tuubee tuub gi mooy jàng laaj ma la leneen ci loxo yi soxna si ci la wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ci doon ko yëgal yonent kon jabaram moo ko tuubal mu doon cànga lislaam di càng moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne wa kaana ashrafu mahrin fi lislaam maanaam càng gi gën a tedd ci lislaam mooy càng Abu Talha ak soxna soxna si Umm Sulaym ndax mooy lislaam ci bopp dugg ci lislaam mu doon càng benn bis ci ay mawaaqif moom soxna si woon ànd ak di mawaaqif bi jigéen ñi saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko doy na sëkk sëkk ku ci doon waxtaan nga ci mbind doy na sëkk di waxtaan nga ci mbind doomam feebar na feebar bu metti Abu Talha dem ci jàkka ji julli ji gee xale bi fàtte na mu jël ko yóbbu ko ci lal ba sàll ko defar ko baax mu teg ko bi ñu demee ci jàkka ji nu mu def xale ba nu mu def mu ne ko sakkana maanaam daal moom dégg nañ ci ne tawatee tane na waaye wax na dëgg daal na ndax yëngu ko ba faas ñu indil ko reer jox ko mu reer ba àll ñu tëdd la borom kër bi tëddee soxnaam ñu ànd tëddee noonu ba suba biñ xëyee def seen naafile yi taxaw bi ba àggal ko mooy ko tal nit koo xam ne dafa abal ay nit yëngu jékki ba bëgg koo jël si ñi ne ko doo ko fi jëlee ñooñu ku leen di àtte noonu ku koy àtte noo koy àtte mu ne ko kooku tooñkat la ci la abalee ko kay bu ko bëggee jël bàyyi ko jël mu ne ko xamal na suñu doom bi yàlla moo nu abaloon léegi jël si mu daal di inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ko parce que lu koy waar jigéen ak doomam jum jum mu mën a def jëfandikoo mel noonu loolu doyul mu mën a ànd ak borom këram ci guddi googu di sëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ko nettalee ba àggal na maa ngi ñaan yàlla seen guddi boobu leen ci yàlla wasul leen loolu yàlla na baaxee kenn ci taalibe Anas bin Malik nee na seede naa xale boobu nga xam ne moo judd woon ci guddi googu juróom-ñaari doomam yoo xam ne yëpp xofaasul Qur'aan al-Karim ñoom ñëpp ñu ma ko la ndax moo jublu ci am boobee xawal ci bis moom kon jigéen ñi nga xam ne ñoo yaroo ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ société yi ak suñ mbooloo yi soxla nañ ñu delloosiwaat seen dund nit ñi xam liñ nekkoon man koo delloosiwaat ci société bi problème yi ñuy dund ak càggante yi ak askanu nasar bi ñu mën a jànkoonte média bi yàq bu bari bi nga xam ne kenn xamul nan la loolu ñu mën a taxaw seen kanam ba loolu dellu gannaaw ba loolu dañ ci suñu xeet bi nga xam xeetu islam la noonu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jàpp ndalal ñu loolu wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad ndax dagal na nit ki di tukki te fekk kay yi ñu yor ci tukkee ni mu ko amee daal jaaree ko ci yoon xanaa mooy yi nit ñi def di neexal ñu di génne ñu visa ñu mel noonu ala kulli xaal ki nga xam ne jaaree na ci loolu ba tukki ba liggéey gis ko wax ne ko li nga liggéey baax liggéey bi kenn du ko wax ne liggéey kenn du ko wax ne yaa nga ko wax ne demal ñibbi ndax fee ñi nga liggéey ba baax waaye yow li defagul dañ lay wax ne soo leen jënd ay këy fexeel ba tegu ci yoon lu tax moo di mën ngaa war sa bopp ci anam yu bari moo di bari nga koy liggéey ci këy di def ko sa xaalis dem lekk ko def lu ci mën a jot te mbir la moo xam ne ginnaaw fraude la doo ko mën a siiwal di wax ne dafa lekk sama xaalis ndax visa laa ko ndax visa bu ñuy joxe xaalis mu fenn ci àdduna boo xam ne da ngay liggéey ci loolu du la fekk koo ko gis ba dara xamal trafic am na ginnaaw da ngaa nangu woon trafic bi bu ci xaalis demee kooku da ngay ñàkk kon kooku benn avance bi ñàkk beneen bi ci des mooy mën nañ la jox bii sax boo xam ne baaxul bi nga wàcc ci réew mi jàpp nga jàpp la ba tey dama la am problème beneen bi mooy amuloo kayit yi sax boobu ci lu normal mais boo ko duggoon ak lu normal it amoo ay kayit nga nekk fa di làqu di jaay mën ngaa dem ba am dara ñu jàppale nangu sa alal tëj la tax bi yàlla génne te lépp loo xam ne jullit bi dafa jub man saa loolu islam dafa war a loolu ci loolu taala di leen laaj ndaw yi nga xam ne ñooy ndaw yi ahlu sunna wal jamaa fan lañ mën a jaar ba benn la seen kàddu ñoom comme ni nga xam ne lu bari ci seen i njiit tey comme ni nga xam ne lu bari ci seen i njiit tey góorgóorlu nañ ba seen kàddu xaw a jege ala kulli xaal nga xam ne dimbalee ak li ñu tuddee tansik muy liggéey bi ñuy liggéey ci islam bi fexe ba jegeele ko nit ñi mën a jëriñ ci seen i morom rawatina ahlu sunna loolu moom lislaam soxla dëgg la xëy na benn moom ñëpp ku nekk benn mbooloo loolu du yomb loolu mbooloo yi tas kër yi mbooloo ñu bàyyi leen ko léegi ñu ñëw nekk àndal ñaar loolu yomb waaye nañ fexe ba liggéey di ànd di ànd di liggéey seet loo xam ne lu amal njëriñ lislaam dañuy ànd di ko def loolu lu baax la ndax dana wàññi lu bare bari ci juyoo bi nga xam ne moom ci diggante ndaw yi ak ndaw bi nag dañoo laaj seen i initiative yi bopp yoo xam ne ñoom ñoo jëloon seen bopp ñu góorgóorlu jéem a jegee seen i mbir yi def loo xam ne buñ ko defee man ñu fekk si leen ca loolu lu am njëriñ lay doon xam ngeen ne coordination musulmane de Dakar ñoom ak jéego la ci loolu jàpp naa ne li ñuy wax CND ndax jël nañu boole lu bari nag ci gox yi nga xam ne ñooy liggéey ci biir Dakar jaar ba génne ko réew mi ak yaatal ko it lépp mbooloo boo xam ne mbooloo bu yëngu ci sunna mën nañu bokk ci biir loola te lépp loolu liggéey boo xam ne liggéey la sunna rek moo koy tax fii ci wàllu li ñuy tudde jomb jigéen ci lay ci lay laaj lan mooy taxawaayam ci lislaam mu ne dafa dégg leen ci ay docteur ñu koy teel ala kulli xaal masala la boo xam ne bu dee dañoo dellu ci sharia borom xam-xam fekk yëpp li ñu ko tudde mooy tiraam tiraam al xifaat dañ ko tudde moom ne tiraam boo demee ci risala dafa gis yëpp dafa fekk boo demee ci rek yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw Madina